sama dernier pa sama dernier mot nag maa ngi koy réserver président Macky Sall ah yal na ko yàlla génne jàmm ak salaam mu dem ak jàmm ak salaam ñu di ko dégg ci jàmm ak salaam loolu nag day am lu ko waral li ko waral moo di mu wutal nit ñi jàmm ak salaam yéene nit ñi jàmm ak salaam doxal ak nit ñi jàmm ak salaam wa salaam.